waaw asalaamaaleykum noo ngi sant bu baax mbooloo mi Modou Mbène ñu ngi lay sant ci interview yi nga ñu def ci sunu sang bu baax ba di sëñ Talla Yaasin sëñ Talla moom li xam ci moom mooy ak baax la xam ci moom doon murid sadiq wëlbatiku doon maam Cheikh Ibra mu sotti ndax daawul wax kenn njariñul boppam njariñul sëñ Touba ak Cheikh ak yàlla ak yonent bi wax ak nag boo gisee nu seey ci sëñ taalab taxawaayam moo rëy ndax taxawaay bi mu am man bu ma ñëw sama kër ndey bu ma toog sama ndey dafa nekkoon taali bi bu baax ci moom bu ma saan ñëw day wax ni ko soxna si mu ne amuñu ah, ko ñun daal li ñu gën a soxla mooy laaxu bisaab lañ soxla te bu ko defee sama yaay ni ko faal teenoo mu ni ko déedéet ndax sëñ Asi sunu yónni te sëñ Asi li mu nu yónni di ay ginaar ak yooyu doonu ko berndeel bu ñu demee duñ am lu ko jox day daal di dajale ginaar yi ko sama yaay di jox <clears throat> ak jur gëm koy jox ak lépp dajale ko sama yaay toogul ko laaxu bisaab lépp luñ ko mosaa jox yóbbu na ko sëñ Asis sëñ Asis moo doon Cheikh Ibra Fall musul am dara lu mu bëgg baa lu muy dox baa lu muy wax loo mosaa wax rek mu ni sëñ bi waxut loolu lu sëñ bi wax la wax lu sëñ bi waxut waxu kon nag sëñ Talla noonu ak baax lu nga xam ci moom noonu nag sunu ànd ak moom daa xaw a yàgg ndax ba mu fay ñëw booba xam naa ni taxut mu nekk mag bu mosaan ñëw saret lañ koy takkal diggante gol ak ndaari ak rip diggante boobu lañ daa jaar moom suñ masaan ndox ba naa tàng day wax ni bu jant bi day wax ndongo nañu toog tuuti bu ko defee ñu toog tuuti ba naa yuy sedd mu daal di ndongo takkaatal ñu def ñu daal takkaat defe naa diggante ndaari ak rip ak gol defe naa ñëpp xam nañ kan mooy sëñ taala yaasa sëñ taala nag boo leen sëñ taala ni Cheikh Ibra ndax ay doxalin ay tànkam rek la doon dox mës dox dara lul Cheikh Ibra lépp lu mës a dox moom lay dox ndigal ci la daal dox ci la daan bàyyi foo ko masaan seen ci ndigal sëñ Aziz lay dox kon nag noonu li tax nu bëgg sëñ taala dëgg-dëgg mooy loolu moo tax nu bëgg moo tax bi mu fi jógee nun amunu wenn wasila wu dul moom te gëmunu kenn ku dul sëñ taala sëñ taala yaas ma nga àllaaxira liñ ci xaw na xaritu daal mooy teel gi mu teel a dem te yéene ji aman ci moom yëgul waaye nag yàlla baax na bàyyi na fi am Cheikh Ibra ndax sëñ bi mu fi bàyyi sëñ Bada Yaasin sëñ Bada kenn gënu ko barki démb dem naa xel ko mu wax benn wax ba woo naa ko téléphone ni ko Fall wax nga wax boo xam ni ko mu tudd dégg du ko dégg li nga sama rakk yi soo muti rakket yéen mag ngeen su ma matut mag it yéen mag ngeen ay rak loola waxin la woo xam ni moo ta dégg la waaye dama koo wax ni ko boo matoon Cheikh Ibrahima gone yi duñ la topp parce que ginnaaw du toppi kuy ruuji bàyyi kuy bojji kon nag Fall da doon Cheikh Ibrahima moo tax sa kii nga wootuñu topp la ma ne ko bis bi nga wootee xel koom ndax xam nga ban bis la mu ma xaw ma ko ma ne ko bisub sant sëñ Tuubaa la bisub sant Cheikh Ibrahima Fall la ci Baye Fall ga say rakk dañoo bal loolu yëpp ànd ak yow Xelkom kon soo ko matiwutoon Fall du ñu ànd yow te ku ànd ak yow ku ne day am mbégte ci yow ndax say doxalin rafet lépp rafet ndax yow la sa ba tegoon tànkam ca nga ko teg ci ndigal rek ngay dox faal ni ngi lay ñaanal gudd fan yaag say rak yàlla na la ko yàlla defal ba nga dem ba nekk xalifa maam Sera Fall yàlla mën na ko faal yàlla na ko def noonu nag noo ngi lay béggee fu nu toll fu nu toll laa la waxoon noo ngi ci rek ndigal li nag moom bu jógee rek nun jóg nañu boo nu soxlaa muy guddi muy bëccëg jël ngay xaar guddi na baa naañ na faal boo soxlaa boo nee faal jóg rek nu jóg noo ngi lay sant baax faal bis ba suñ ca mënee teew bu soobee yàlla daanu ca teew li nu war a wax ci Cheikh Ibra nag bari na waaye xat-xat yi xëy na ko moyut ak jot gi baax na jërëjëf Fall yàlla na yàlla dool sutura yu baax Fall baax na moom